Ah, asalaamaaleykum àdduna bi yëpp oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk mu leen di nuyu borom yàlla yegg si barke bi mal xiyaama lakk bar gars yi nag tey dafa am lu may waxtaan xam nga heure bii daaw heure bii daaw ñu ne Tabaski fukki fan ak juróom a ci des wala Tabaski ñaar fukki fan a ci des am na fi benn waay boo xam ne ngi nekkoon ci tiktok bi naan rang rang rang di lëmba réew mi. ñii naa ko yaa ngi def bës mun a Dakar bës maa ngi def bës barke bi mal xaam lakk bar gars yi mbaa yéen ngi koy fàttaliku mbaa yéen a ngi koy bàyyi xel àddunaa ngi nii nag nattoo ko dal ñu ne ko fataam ci kosa bi ma nga nee caabi féete na ko ginnaaw ñaf nañ ko ci kosa bi yéen wun la kosa bi yàlla na la fi yàlla génne ak jàmm ñi may waxal nag sénégalais lay wax bépp doomu aadama ak noo mën a def ci àdduna barke bi mal xaam lakk bar del bàyyi xel sénégalais yi loolu la ne yaa fi boo wonee ginnaaw bokkut ma ni mbaa mbaa yéen ngi dégg fi may wax ma ni sénégalais laa wax de sénégal kum la wax nii la yow yow la yaa fi nekk barki yombal xaama lakk bar boo wanee ginnaaw bokkutoo saa suñ la tóojee ba ca kaw sa benn tànk bi déggoo ma de pare ko yow yow pareel say tànk rek nga xam ne buñ lay bàyyi rek na fekk nga tax nga di sëpp ak say tànk mais bis buñ la tóojee ba ca kaw nga farankalaayu buñ lay wàccee ngay ñox sa xoon ci suuf gars yi na ni bàyyi xel sàmbaka yéen ñi daan jël seen alal di ko jox sàmbaka mbaa yéen a ngi koy seeta ca bërëb bee mu nekk yéen ñi nga xam ne sàmbaka daan ne leen defal ay vidéo di rang rang rang mel ni muusuma liw mbaa yéen a koy feet seet seeti fa mu nekk sàmbaka fan yii mu toll barke bi amal xaamal ak kabar soxla na ko ni ko kaay ndeysaan yéen ñi mu daan defal ay vidéo ak télé yi mu daan jaar war ngeen a dem feeni ko samba ah jëndal na jëndal na la ba tabaski jox nañ ko sa baay ak sa yaay ak sa jabar ji yi mu ji mu bàyyi moo tax fi may waxee nag foo nga dégg ma yow mi nekk ci tiktok bi jëlal yow mi nga xam ne yaa yaa ngi pëndal ñu naa la yaa ngi def bës barke bi mal xaamal ak bàyyi xel bis foofu bis ak luñ la bëgg-bëgg boo feebaree déetu ñëw de boo faatoo fan ñu njëkk yee moom mën na lay ñaanal ak nangam sangam mais bis boo faatoo fa yàllaw ñoo faata nañ la saa suñuy bërëm ba yam ci sa vidéo ndeysaan ku baax na moom nga ci am booy dof-dof lu nag ba tooñ nit wala nga jël àlal jàmm ba nattu yàlla jot la ban ñaf la ci kosa bi danaan doomu xaram la ndekete moom li muy baax ak li muy layam laam sàcc la wala nangam sangam tooñkat la gars yi il est ñu bàyyi xel barke yo mal xaamal ak kabar sàmba nag ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax fa nga nekk ne yéene wuñ ko mbindeef ci àdduna yal na la yàlla taxaw yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla génne jàmm ak bépp bépp ku fa nekk barke bi mal xaamal ak ba bépp doomu aadama bu fa nekk yal na la yàlla génne ne la coppet ba nga ñëwaat nga bañ a demaat la la fa yóbbu woon barke bi mal xaamal ak